kullu jismin laa ruuxa fiihi wa laysa munfasilan han di ruux fa shamila al arda wa nabaata bi jamii anwaaxi wa min al maaiyaati al maau wa zeyt wa laysa min al jamaadi al hasalu wa labanu wa simn linfisaaliha min zawaatil arwaax jamaat buñ ko waxee fii ci fiq mooy loo xam ne amul ruu te bàyyikoowul ci lu am ruu lool nag ak lu mën doon ci xeetu suuf mbaa xeetu gàncax rek laab na ndegam du màndal su dee màndal moom sobe la waaye li fekk du màndal rek laab na bu dee lu mel ni lem nag wala soow wala diwu ñor amuñu ruu waaye dañuy bàyyi ko ci lu am ruu kon ku ci nay am àtte boppam lem mën ngaa jàpp ne lu laab la soow nag moom day topp rek la soow ma bàyyi ko bu dee lu yoon araama la lekk soow ma sobe la bu dee lu yoon sib ku ko lekk soow ma lu ñu sib la bu dee lu yoon nangu ku ko lekk mooy yoon daganal na ku ko lekk te itam meddut mbaa dañ ko rendi soow ma laab na su xasee medd nag soow ma yàppoo ñooyemoo dara laabu ca diw ñor day topp rek àtteb soow ñoo bokk boobu àtte damun ak deret bilaa safxin ci lu dul ak tóor wala nga ne ak fis deret day ñaari xaaj deret ji nga xam ne bu ñu rendee rek mu tàmbalee wal di sotti ku bàyyikoo ci fu ne ci yaram wi ak buñ jamee fenn ci yaram wi deret ji tàmbalee nàcc moo tudd addamu almasfuux jooju sobe la deret ji mu tollu nag te wax ne moom jullaab la mooy ji nga xam day nekk ci xol mbaa mu nekk ci sëddiit yi mbaa ñi dagg yàpp yu muy nàcc jooju lañu wax ne moom jullaab la wa tax sarabina wa huwa maa yujadu fi qalbi alxayawaan aw xuruqihi aw maa yarshaxu min allaxmi li annahu min ajzaai lmudakka kon deret joo xam ne la ko tax a nàcc sabab la dañoo dagg sadiit ga tax koo nàcc wala ñu xotti xol ba tax koo nàcc wala ñuy dagg yàpp woo muy nàcc jooju moo laab kasaaliki nii ajji saa uma xaaji la nga xam ne bukki rendeef na ko walaw bil kurhi ak doonte daa ànd fukk sib laama wax ñu la nga xam ne xorrima araama leef na ko lu yoon nangu ku ko lekk te ñu rendi ko boole ca lépp lu ca bokk rek laab na moo xam daa bokk ca yax ba mbaa xeeti caas yi wala béjjën ba wala weya wala bu dee lu ami dongu moom daal ndegam yoon nangu na ku ko lekk dañ ko rendi rek kon lu ca bokk rek laab na ba mu des nag ya nga xam ne dañ ko caa génne woon ni ki deret ja nga xam ne da ngay rendi rek mu sottiku mbaa ngay fees gis mu tàmbalee nàcc rek di jékki-jékki di génn ak it nga jàpp ne mas yu ak wadd yu ak mën yu daañu ko wax ci kanam doonte sax daa bàyyi ko ci lu dagana lekk it du tee ci yoonu Mali moom sobe lañ koy jàppee loo xam ne it yoon da ko sib rek ni ki yi am ab sell tey fàdd seeni moroom bu dee ci yoonu Mali dañ koo siba lekk rek yow bi leen xasee rendi lu ca bokk rek day daal di laab ni ki derwa sax mënees na caa julli mënees na koo jaay ndax dañuy jàpp ne ndegam sib rek la buñ ko xasee rendi derwa laab na buñ ko defaree ba mu set rek mën caa julli mën koo jaay mu des nag lu yoon araamal ku ko lekk ni ki mbaam xuux wala mbaam yi ci kër gi wala bax la wala fas bu dee ci yoonu malik yooyu moom ñu rendi ko ak mu medd ak am lu dagge ca moom rot ci jamono mi dund ñoo ci yemoo lépp lu ca bokk rek sobe lañ koy jàppe wa maytatul baxri ak mbeddum géej lépp loo xam ne ci géej lay juddoo moo xam jën la moo xam day xeetu jësik wala bonaatu géej mbaa weneen rab woo xam ne daal moom ci géej la dëkk niki am na lu ñu wax rin siirul baxri mbaam xooxu géej am lu ñu wax kalbul baxri xajub géej am lu ñu wax sax aadamiyul baxri doomi aadamay géej ndax daa am lu nekk ca géej juddoo ca dëkk ca te muru mbaam xoox mbaa mu muru xaj mbaa mu muru doomi aadama ba ñu leen di tudde noonu yooyu yépp nag lu ci medd itam teewu koo laab moom laab na ci lekk laab na itam ci bu la taqee te benn solo laalu ca nga mën koo julliwaale waaye nag la cay nuru doomi aadama di rabu géej dana araam doomi aadama joteeg moom ni muy joteeg jigéen ku ko def ñu ko jàppe njaaloo nag di ko géttan waaye attikat bàyyi seet nam ko war a yare mu yare ko noona mel na rek ku fekk bahima am xaram mbaa bëy mbaa leneen mu joteeg moom joteeg njaaloo rek attikat baa ko yar na ca yenn noonu la mel nag ku jàpp rabu géej woowu joteeg moom kon lépp lu yàlla bind mu dëkk ci biir géej nga xam ne fa la juddoo fa la dëkk mën naa am sax mu bàyyi koo fa ñëw ci suuf si ba yàgg fi waaye moom daal ci ni ko yàlla bindee ci ndox lay juddoo ca lay dëkk loola bu meddee itam teewu koo làpp wama ak la nga xam ne laa dama déet deret loxoo di ko ñeel lépp loo xam ne amul deret ji sottiku bu meddee itam teewu koo làpp ne xeeti mbóot yeeg xeeti gunóor yeeg xeeti jiit yi yu mel noonu yu bare bari lañu boo leen jamoon deret du sottiku yooyu nag bu ñu xësee medd teewu leen a laab teewu leen a laab ci boo ko julliwaalee du wàññi dara bu soppi woon am ndox it ñu jàpp ne lu laab moo soppi ndox waaye nag taxul nga sañ leen a lekk ci buñ meddee ndax day aajowoo rendi te rendi wuñu leen bu ñu ne day aajowoo rendi nag mën naa mu jaaxal la ndax aw sax noo koy jàppee di ko rendi wala aw mbóot wala jiit waaye saye boo jàpp ne lépp loo ko def te jublu ci rendi rek ba mu dee rek loola ak rendi la loo dagg ca moom donte tànk baa mbaa leneen ca moom te yéene ci rendi rek loola ak rendi la bu dee sax wi sax moom bu nekkee ci doomu gerte wala ci leneen lu laab mën ngaa jekki-jekki rek yéene ci rendi daal di koy lekkaale mook la mu nekk niki doomu gerte ba wala beneen doomu garab ba nga seetlu foofu ne li ñu wax aw teeñ dañuy jàpp ne am na deret joo xam ne boo ko jamee mu sottiku kon moom bu xësee medd laabatut sobe la doo ko sañ a julliwaale nga xam ne kon teeñ yi deewut mën nga koo julliwaale te teeñ yi nga xam ne ñoo xës dee doo leen mën a julliwaale loolu mat naa xàmmee ndax bi muy dund laab na te bu xasee medd rek am na deret ju sottiku kon sobe la laa wasahun du caagéenu unk unk wa suhmatun ak jaan wa sihliyatun ak liy wax lézar lézar sihliya daa mel ne ca misra égypte foofa la gën a bari mel na ne xeetu rab la ñu koy wax lézard téere bi dafa bind suxliya waaye boo ko dee xool ci seetukaay yi assixliyatu la ñuy bind dañuy kasra siin si ba noppi sàdda yaa ji xëy na kon dafa bañ a sàdd yaa ji ngir way wi day leeral foofu ne unk wala jaan wala rab wu ñu wax lézard ak mboole mi nga xam ne am nañu deret ji sottiku bu ñu xësee médd rek sobe lañu yooyu nag dañoo bari lool yi nga xam te yàlla sàkk leen ñu am deret joo mën a jàmm mu sottiku dañoo bari yooyu yépp nag na la wóor ne lu ci xës médd rek sobe la lu may nag muy mbeddum géej mi nga waxoon léegi nee nga woon lu dëkk ci géej moom su meddee itam teewu ko laab wasaxa bu riishi ak càmbatali dungu maanaam dungu sew sewaan yi taq ca gattaxu dungu wa wa suufun ak kawarug gàtt wa wabarun ak wabar ba tey kawar la waaye day dellu ci gëléem ak lëg wa shaharun ak kawar moom it waaye day dellu ci doomi aadama ak fos ak baxla ak mbaam in jus sa ndem duufeef na ko mooy ndem xuufeef na ko min xayin mu tukkee ci aju dund wa maytin ak lu dee bu dee lu ami dongu donguy sew ya nga xam ne man nga koo din te du ko yëg ni ki sax booy jàpp ganaar mu jekki-jekki topp ci say loxo loola laab na moo xam loola ngay dund moo xam loola dafa medd ba tey kawar moo xam day kawaru xarak bëy wala muy kawaruk doomi aadama mbaa fas mbaa baxla mbaa mbaam wala muy kawaru gëléem mbaa lëg lu ci mën doon daal buñ ko xuufee rek ca kaw moo xam loola ngay dund moo xam loola dundut loola laab na bu loola xasee medd nag mbaa ba muy dund la sax ñu suqee ko ci der yaram wa nga xam day metti loolee ñu suqee ci der yaram muy metti moom sobe lay doon moo xam loola daa medd moo xam loola day dund ñu dindee ko ca moom bu doon nag lu dagan a lekk te ñu rendi ko moom kawar ga ak derwa ak bu dee borom dungu ya dungu mag waag yu ndaw ya yépp ay bokk làpp kon da ngay takk ne loolu nga xam ne meddam sobe la loo ci xam ne ba muy dund boo ko doon dindi du ko yëg du metti bu xasee medd itam boo ko soxlaa rek mën nga koo dindi jëfandikoo waaye nag loo ci xam ne ba muy dund soo ko doon dindi ci moom muy metti nag bu xasee medd te meddam nekk sobe rek jeex na sobe lay doon jamono ya muy dund lépp loo dindee ci moom rek ci luy metti daañu ko leeral ci kanam sobe lay doon wa xamratun ak sàngara in xullilat ndeem njawaleef na ko maanaam defeef na ko bineegar aw xujjirat wala dojaleef ko mooy soppeef ko aw doj mu wëriyee ba doon aw doj wa zarhu ak mbay in yusqandeem def ko suuxat bi najj seen ci sobe fa nabata te mu sax sàngara la wax ne bu demee bu wëriya soppi ko bineegar laab na ba tey sàngara bu soppi ko aw doj te boo ko seeyalee du ko tax a màndal laab na waaye nag bu soppi ko aw doj te boo ko seeyalee muy màndal nag kon laabut mbay itam buñ ko suuxatee sobe doonte sax dañuy lekk xob ya noonu niki supame wala salaat wala bisaabit suuxate gañ ko suuxate sobe du ca wàññi dara teewu ko laab bu dee lu ñuy jëfandikoo reen ya it niki karoot ak yu bari yi nga xam suuxate ga sobe du ca wàññi dara fii maytatil insaani nekk na ci néewub doomi aadama xulfun ak wuute xas sa soogoog jagleel nañu ko doomi aadama bu xasee génn àdduna boo tegee fee yonante yi dañuy wuute ci ndax jëmm ja laab na ba tey wala laabut wax ja gën a wóor mooy waaw doomi aadama bu faatoo teewu koo laab bu dee yonante moom maase nañ ci ne bu faatoo itam teewu koo laab wara xasoo yolamal nañu fi ramaadi ca dóom ba wa duxaani ak saxar sa bu ñu ne nangam sobe la buñ ko lakkee ba mu def ab dóom mbaa ñu koy lakk muy tàkk ka saxar doom boobee laab na saxar say bàyyi ko ci bañ ko lakkee laab na nga xam ne boo jëloon morso bi yàpp lakk ko ci gël ba muy doom bu tàng ba wala nga di ko séndal ca saxar sa saas di ko dugg moom morso bi yàpp mbaa leneen du ko tee laab waaye nag lu bokk ca sobe sa te takkut bu taqee ca la nga doon lakk faaw nga war koo dindi ndax loola moom sobe la wa arjahul aqwaali gën jaa lëngi wax ya bit taxaarati nekk na ci laab ga fii maytatul insaani ci néew doomi aadama xattal kafarati ba sax way weddi ñi yàlla mooy li ñu waxoon léegi dane doomi aadama wax ji gën a wóor mooy bu faatoo itam teewu koo laab doonte da di ab yéefarit du tee rek jëmm ja moom laab na nga xam ne jigéen bu doomam faatoo mu boot ko julliwaale ko te fekk taqul seen sobe dara nekku ca ndax lu laab rek la julliwaale wama la nga xam ne in fasala facc na minal xay yi bàyyi ko ci aji dund awil mayti wala lu dee ka maytatil xay yi mi ngi mel ni méddum aji dund ja ëllësi ja nga xam ne xasala amee na minhu ci moom dafa joxe foofu takk-takk boo xam ne mën nga koo jàpp mooy da ngay wax ne lépp loo xam ne bu méddee du tee yoon ne laab na te loolu mooy yi nga xam ne amuñu deret ji sottiku niki aw sax wala njëréer lu mel noonu lu bàyyi ko ci moom ci waxtu muy dund ak lu bàyyi ko ca moom ci gannaaw bam faatoo dañuy àtte ne mu laab la nga teg ci ne lépp loo xam dañ ne méddam sobe la te mooy rek lu am deret di sottiku te du doomi aadama bu ko see médd rek sobe la loola loo ci dindee gannaaw bam méddee te muy loo xam ne ba muy dund boo ko ci doon dindee mu di ko yëg muy metti loola sobe lay doon loo mënoon dindi ca moom ba muy dund nag te du ko yëg du metti bu ko seen metti itam boo ko soxlaa mën nga koo dindi jariñoo ni ñu ko waxe woon léegi li ci dolli foofu nag mooy mu wóor la ne loolee di dund te nga xam ne bu meddoon ñu ne medd mi sobe la jamono ya mu dund lu daggee ci moom rek sobe lañ koy jàppee ni ki tey boo doon jàpp ganaar bëgg ko rendi xëcc rek far tànk ba topp la tànk boobee daggee ca moom te fekk muy dund tànk ba sobe la doo ko sañ a lekk bu la ca dara taqee faaw nga dindi ko doo ko mën a juliwaale soo bëggoon na jàpp aw nag bëgg koo rendi mu naqaree jàpp tax nga dóor ko lu am ñaw ka bu ci ñaw ka la daggee lu bokk ci yàpp wa loolee mu daggee ci yàpp wa sobe lay doon dee su ko mën a lekk dee su ko mën a julliwaale du tee nag loolee dund nga ko doon jàpp ba am loo dindee ca moom mu wax ne la nga dindee ca moom sobe la du tee bu fekkee gaawoo ko ci pàddu rek ba tey mën nga koo rendi te boo ko rendi jëmm ja daañu ko mën a lekk waaye nag boo xësee gaañ ci pàddu moom jeex na dañuy jàpp ne medd na ba noppi boo ko rendee du ko tax a baax mel ni aw nag mbaa leneen bu naqaree jàpp naqaree rendi ba tax ñu ko doon sànni balu fetal su balu fetal ba dalee ca tànk ba rek foo xam ne du pàddu kon nañ koy daldi gaaw rendi loola baax na waaye su bal ba rëccee dal ci pàddu rek jeex na médd na ba noppi buñ ko rendee du baax kon da ngay takk foofu ne lépp loo xam ne nii day dund waaye am na deret ji sottiku nga xam ne su meddoon rek yoon ne sobe la jamono mu dund loo daggee ca moom lu bàyyi ko ca moom rek sobe lañ koy jàppee loolu moo tax ñuy wute ci maye deret ndax ndax maye deret dañuy dindee deret ci doomi aadama ji dund def ko ci keneen ñu bari nag ci ñi ci ubbee dañuy wax ne dagan na ndax faj lor moo tax ñu daganal ko nga bañ a fàtte foofu ne bu ñu ne doomi aadama bu xësee faatu teewu ko laab lan waxoon ne sobele ci moom ba muy dund it bu faatoo ba tey sobeley doon ni ki sawma ak xayta ya ak lu mel ne wadd yoog mad yoog man yoog deret ji nga xam ne boo jamee rek mu sotti ko mu tàmbalee tuuru yooyu yëpp nam doone woon sobe ca ba muy dund bu xësee génn àdduna moom doomi aadama itam yooyu ba tey sobe lay doon loo ci xam ne nag ba muy dund mënees woon na koo dindi te du metti ci moom bu faatoo itam mënees na koo dindi te du ko tax a doon sobe mel ne lew yi tiwee wala ñu jemp kawar ga ci sisu mbaalu ko nuru nga xam ne watewuñ ko ci dund dund deru yaram wa yu mel noonu nga xam ne ba muy dund buñ ko doon dindi du metti gannaaw bu génnee àdduna itam noonu la laab na muy ci doomi aadama muy ci leneen ci yi nga xam ne seen medd sobe la ni lu ko waxe woon ay yoon yi yoon wan najasu sobe almaytu mooy medd ma allazi ma nga xam ne lam yudkar tuddee fu ko woon wa kulluma ak lépp loo xam ne ustusniya setteef na ko settee mooy génne wa kullul muskiri ak jëpp aji màndal dafa bëgg a jublu ci wax ñi nga xam ne sobe lañ wax leen ñu jege ndax nga mën leen a takk mu ne nag la ci jëkk mooy boo génnee medd maa la waxoon ne la laab na bu bokkut ak moom rek sobe la medd mu waxoon ne laab na mooy lépp lu yàlla bind muy juddoo ci géej dëkk ci géej mën naa am sax mu see génne ñëw ci suuf si ba yàgg ci du ci dara loolu bu xasee medd teewu ko laab loo xam ne itam amut deret jooy jam muy sottiku mel ne mbóoti yeeg gunóor yeeg yu bare bari ba tey lu ci medd teewu ko laab boo génnee yooyu yaar nag lay des di medd mu laabut mooy lépp lu am deret joo xam ne boo ko jamee mu sottiku loolu bu ko seen medd rek sobe la ba mu des doomi aadama waxal nañ ne la ci gën a wóor mooy doomi aadama bu xasee faatu itam teewu koo laab li mu ne ak lépp lu ñu settee woon settee mooy génn rek soo waxee waxin woo xam ne day ëmb ñu limu gannaaw ba nga teg ca lu ci génne ñenn ca ñooña mbaa sax kenn ca ñooña génne googee koo xam ne bokkoon na mu dugg ci la nga waxoon loolu moo tudd seetee ni ki boo nee ñi tawatoon ñëpp tane nañu tekke ne ba mu des diw ba mu des diw jooju loolu mooy seetee daa bëgg wax ne lu mu ne woon laab na ba mu des nàngam moo xam illaa la ko defee ni ki ba mu ne illal madira ndare nen bu nëb nen bu soppiku ba yàqu moom laabut lu ma ràññeeloon rekk ba ne la lu laab la loo gis mu safaanoog moom rek su ma ko waxutit xamal ne settee naa ko xamal ne génn naa ko wan la ne la moom safaanam boobu laabut niki ndegam waxan na lu yoon daganal ku ko lekk te du lekk sobe am sawam ak ay xaytaam laab na kon dana ko waxaat léegi ngay dégg waaye kon lu yoon araamal ak lekkam mbaa yoon nangu na ku ko lekk waaye moom day lekk sobe saw maa xayta yépp sobe lay doon ba tey ndekam waxoon na ne lu dagana lekk lu ne am soowam laab na lu ñu sib ku ko lekk am soowam lu ñu sib la la nga ciy dégg foofu mooy lu araama lekk moom soow ma sobe la lu ñu sib ku ko lekk it am soowam sib nañu ko ba tey nañu sibe yàpp wa ba muy tudd nen da caa génne woon nen boo xam ne lu ñëdde ko nen wala nen boo xam daa dem ba nub soppiku yàqu kon yooyu nen nen bu bàyyi ko ci mbedd mbaa nen bu yàqu sobe lañu wàcc ma itam ba muy wax lu laab dane woon wàcc ma nga xam ne na meloon bañ koy lekk rek la mel biñ ko wàccoo soppikuwut nga déggee ci ne kon am wàccu mbaam ngal ñoo yemoo lu ci xës soppiku sobe la yu ci bari ñuy wax nii doon nga ko xamee ci gannaaw ndax lu ci nekk dañ ko doon leeral bu nu ca tolloo li mu wax ne nag wakkulul muskili ak jëpp aji màndal mooy lépp loo xam ne day màndal te doon ndox boole ca xanaa bañ a nekk lu way xanaa nekk lu ruy muy nekk liquide loolu maase nañ ci ne moom sobe la ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi dañoo wute ci loo xam ne day màndal waaye nekkul lu ruy maanaam nekkul liquide mel ne yamba wala xeeti doom yi nga xam ne boroog la mbaa yu ko nuru nekkul ndox mu ñuy xelli ci la ñuy wute boroom xam-xam yu mujj yi dañuy yemale yooyu ak la nekk ndox moo mën a xelli jàpp ne lépp lu ci màndal rek sobe la boroom xam-xam njëkk yi ñoom dañuy teqale loolee di màndal doon liquide ndox mu mën a xelliku ak doon lu dëgër këng mel ne ab doom walay xob ni ki yàmbaa ñoom dañuy wax ne su dee ndox ma moom sobe la te it ku ko naan mu màndi ak mu ñàkk a màndi ñu war koo gétan kenn du ko sañ a jiliwaale itam ndax sobe la waaye la nga xam ne nekkul am ndox ni ki doom yeeg xob yi moom jëmm ja laab na mën nga koo jiliwaale te it bu dee ci wàllu jëfandikoo mën nga caa jëfandiku lu faj sa lor te du yàq sam xel ni ki buñ nee nangam drogue la bu dee ci ñoom daañu nangu nga jëfandikoo ca lu lay faj te du yàq sam xel du yàq dara ci saw yaram mooy du yàq dara ci wéru yaram la ci araam rek mooy jëfandikoo ca lu yàq sam xel mbaa lu yàq sa wéru yaram loolu moom ku ko def duñ ko géttal ni ñu géttale ku naan sàngara waaye aatkat dana ko yar ba bu ëllëgee mu bañ koo def na mu ko yare nag moom ci boppam rek moom àttekat bi moo koy seet boroom xam-xam yu mujj yi ñoom dañuy maasale rek lépp luy màndal mu mu nekk liquide ak mu doon leneen lu dëgër ñoo yemoo araam na sobe la it te ñoom dañ ciy àtte àtte yu diis a diis ba boo delloo sax ci li ñu wax tux ni ki tux cigarette ñu njëkk ñi dañuy wax ne am nañ ca wóote ci ndax dagan na wala araam na waaye nag ñoom buñ dee wax dagam day itam dañ ci génne ay tolluwaay yoo xam ne moom day araam du daganati mel ne bu dee ci biir jàkka wala fu mbooloo mi tase bu dee ci jàkka jàkka jaa tax bu dee ci fu nit ñi tase mbooloo ma fay tase ñoo tax ndax bu jëfandikoo am tux te du moom rek am na keneen ba ñeneen ñu fa nekk mën nañoo loroo ca loola mel ne ci wax ñooñu bu wéetee moom kenn képp te nekkul ci jàkka nekkul di jàng alxuraan ba muy tudd yàlla kon mën naa tux jëfandikoo cigarette li tax nag ñi ubbee ci sunu jamono jii ñi araamal xeeti tux yi doonte sax tux mu woyof mi la dañoo gis li ci xam-xam bu yees wane ci xeeti lor mel ne tux bokk na ci nga